on en a pris des mesures très importantes. ma jox la benn exemple <coughs> c'est l'idée de dire exemple mm. que jamais dans notre histoire politique jamais un gouvernement n'aura autant fait pour une campagne agricole ba Senghor nekk fii ba léegi. cent à part la période euh, Mamadou Dia. Mm. disons soixante ba crise bi di am mm. mais depuis la parenthèse Mamadou Dia. Mm. jusqu'à ici. jamais un gouvernement noura aussi fait pour une campagne agricole. Mmh. D'abord, euh, du point de vue du financement. Macky da daan def chaque année mu yokk vingt milliards. waay Macky Sall aussi jàmbaar la ci côté boobu quand même chaque année da daan yokk vingt milliards. ba daaw yóbbu ko cent. Euh, cent régime bi mu ñëwee tamit. yokk ci vingt logique bi. te man sax jàpp naa ne on aurait pu faire pour une première on aurait pu faire même mieux. mënoon nañoo xëcc rek daggat beneen veine parce que le gouvernement s'est déjà coupé une veine mais mënoon nañoo daggat beneen veine bi démarré ko. démarré ko euh, ci benn cinquante milliards. jar na ko parce que muy cent cinquante euh, milliards très bien mooy suñu fondement mais bon je vois que les les caisses euh, sont. déjà déjà waaw boo muyul yokk. mais téye fa quand la fa la fa nekkoon et déjà c'est important président Macky Sall bi mu fi nekkee pendant trois ans quatre ans. Mm. daa ameel xaalis semencier yi déjà campagne agricole bi ngeen daan dégg ñaan day yàqu day koy sabot euh, xam nga la ma ko doon yàq hmm. bor bi état bi daan amal euh, opérateurs yi en ak semencier yi bor boobu moo daan bare bari ba nga xam ne gars yi la dañaa banque seen loxo mais gars yi ñi ngi ñëw même pas deux mois ce que Macky a euh, li mu président Macky Sall deful pendant trois ans quatre ans gars yi def nañ ko ci deux mois c'est-à-dire que presque euh, je pense que semaine prochaine hmm. danañ fay presque c' est une enveloppe de 47 milliards yu ñu génne fayal gars yi loolu pare ci tamit ñi nga xam ni nawet bu daan jot état du Sénégal daf leen daan amal bor. Mm. ba nga xam ne entreprise yooyu du ñu dem di curé euh, caniveau yi. Mm. et cetera ñooñu dañ daan ñoo ñu aussi bu ñuy semaine prochaine danañ leen fay arriéré li ñu leen ameloon depuis trois mois pour que entreprise yi def ce qu'on appelle les opérations pré hivernales est-ce que vous mm. mais ça c'est des mesures yoo xam ne euh, wàññi prix engrais bi et cetera. et d'ailleurs lu tax muy mérité ñu doo cee waxtaanee. Hmm. mooy gouvernement bi def na benn super effort. léegi nag des na beneen super effort. mooy mu mat sëkk nag. mooy lii Gallo Thiello naan mu mat sëkk. waaw mu mat sëkk <laughs> parce que campagne agricole c'est deux phases en fait c'est la production et la commercialisation. commercialisation ouais. le gouvernement a réussi le pari de la. production. Hmm. parce que euh, dooleel na gars yi ba nga xam ni ren vraisemblablement. Hmm. suñu yàlla dimbalee. danañ am nawet bu barke danañ am des productions yu am solo. parce que léegi quantité en qualité. en qualité parce que euh, lu mu daan dikkee baykat bi. Hmm. Euh, obstacle yi ak de d'étranglement yëpp bu ñu ko di wàññi nañ ko considérablement maintenant l' autre étape. boo xam ne léegi nañ doo ko commencé mener la reflection pour la gouvernement. c' est que bu ñu demee ba campagne bi jeex. nan nañuy def ba état bi. di jënde kilo gerte ci baykat bi téeméeri dërëm. minimum téeméer. boobaa dina doon dina doon dina doon exploit. Ah, léegi nag su boobaa kilogramme bi avantage bi muy gën mooy ñun góorgóorlu yi. baykat yi nappkat yi sàmmkat yi artisan yi. Mm. lu coût de la vie cher cher danañ ko mën a gérer. Ah. parce que logique gu réduire le coût de la vie am nga deux leviers soit tu l'attaques par la baisse des prix ou bien tu l'attaques par l'augmentation du pouvoir d'achat. est-ce que comprendre et donc pour le moment ci li ñu yaakaar ne gouvernement yi war la mën a appuyer foofu euh, illico presto mais dans le domaine de l'électricité la baisse des factures d'électricité mais su ñu ko bëggee baisser le niveau hmm. euh, euh, du coût de la vie oui. il faut davantage euh, relever le niveau du pouvoir d'achat de relever le niveau d'achat mooy comment faire d'ici les trois mois de la production que nous puissions réhabiliter notre Sonacos pour permettre à notre État dekkilaat Sonacos très bien bu baykat yi kiwee minimum mu jëndee ko cinq cent voire même sept cent francs c'est possible parce que euh, genre forme d'accompagnement et donc certainement on va réussir la phase de la production la productivité maintenant il nous restera comment réussir la commercialisation parce que baykat bi soo ko yombalee yëpp mais mu defar yëpp ba pare est xam nga ni tey ji boo demee ci côté Saalum beeg yooyu. waaw am na ñoo xam ne seen gerte daaw ba léegi ñu ngi fi xam nga lu tax parce que prix bi leen ko bëggoon na jëndaloo. ay trois cent trois cent cinquante dañ ñëwoon dañuy bàyyi du ñu ko. jaayee yàggul sax trois cent cinquante c'est très bien parce lu tax. ndax chinois yi très bien ñoom ñoom mënoon nañoo jaay seen affaire. Hmm. ca chinois yi. Hmm. mais gis nga finalement chinois yi ñëwuñu donc ñoom seen gerte ña ngi ko denc ba léegi et donc c'est ce défi là réussir ensemble c'est-à-dire que nan la ñuy def ba baykat bi su bayee boo ko ko yombalee ba mu bay ba pare nga jënd ko ko en prix bien en prix fort euh, bu fa jógee lu àdduna jafe-jafe ci ay prix hmm. moom dana ko mën a dékku parce que am na cap et donc ce sont pour man le très bien euh, le service après vente hmm. euh, disons du conseil de de communiquer ci gën ko yaatal yooyu la et puis ak accompagner les forces de défense et de sécurité pour la première fois ci rigueur bi ñu xam ci comme ni nga wax ni kenn du ko kepp fenn ñi ñi nga xam te du ñoom ñoo ko yeeyoo du ñu ko jël dina yegg directement ci baykat yi pour mën a def impact bi ñuy xaar sax et sax yaa yaa yaa toute une hmm. xam nga euh, ñun ay nitu àll nañ quoi <laughs> ah, ñun ñëpp euh, waaw euh, historiquement et traditionnellement ñemewuñu takku der <laughs> xam nga lu ma la ah, waaw ñemewuñu takk der Euh, dañu may nettali Fuuta añam siwol ba ma mm-hmm. dëkk sama benn euh, nijaay mm-hmm. moom douanier la woon mu ñëwoon côté Fuuta noonu mm-hmm. laajte kër ga euh, bañ joxoñ ko kër ga mais comme dafa soloon tëni bi muy ñëw kër ga dégg a waa kër ga dañoo daw tëj bunt bi quoi parce que comme moom tëni la sol rek <laughs> gars dañoo yaakaar bi <laughs> am nañ lu ñu def quoi et donc historiquement dañu am kon donc y une grande pédagogie surtout que ñu war a dugal le militaire dans oui. le processus oui. et donc il y une grosse pédagogie en termes de communication ba sama mbokk baykat yi ñeme ay takk der ba pare ñu xam lan mooy doon seen mission ñu xam nañ lañ leen mën a aborder est-ce que nga mais c'est bien d'y mettre les militaires mais c'est encore mieux de faire dans la pédagogie de la communication pour baykat bi ak ñi nekk ci filière yëpp ñu xam lan mooy doon seen rôle. Mm-hmm. parce que par essence takk der par essence il est dans la coercition. Mm. xam nga euh, et cetera. or à l'état actuel ils ne sont pas dans la coercition ils sont dans la facilitation. est-ce que problème xam nga armée moom bu boo ko gisee rek xamal ni. waaw euh, am na lu xew. mais c'est la première fois ngay gis armée te jàmm rek a xew. que donc loolu. dafa nécessité benn campagne de communication. gars yi xam quoi que du l'idée de armée nation. c'est toute la dialectique qu'on appelle armée nation. comprendre que population yi après nga xam ne bis bu ñu ci waree ba ñuy ñëw on les accueille comme des rois. une armée au mais quand même ñuy bañ di ñëw. Hmm. ñuy tiit ñu mel ni dañuy ñëw pour. Ah. dóor ñii euh, et cetera euh, du ñu firi. c'est-à-dire il faut que ñu delluwaat ci l'animation rurale pour parler comme Mamadou du et l'animation rural nag euh, et d'ailleurs le ministre de l'agriculture et c'est pour ça que ouais. euh, c'est un gars que qui m'intéresse particulièrement ah, que, je suis, suivre, ouais, ouais, que je suis quoi parce que il a des idées quand même hmm. euh, je pense que kooku hmm. bu ñu ko jàppalee dimbali ko moom ma Bouba Diagne soo nee bu ñu ko jàppalee dimbali ko mooy acteur yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi tourner autour de l'agriculture euh, je vois en lui un potentiel Mamadou Dia euh, pour man à terme kii li mu bë euh, li Mamadou Dia indi woon. waaw te mu mujjul àgg euh, moom ci tànk yooyu la nekk quoi. Euh, c' est, c' est vrai Ousmane dama waroon bàyyi ma ñëw ak samay livres quoi <laughs> euh, parce que j'ai quatre livres de Mamadou Dia. oui où mu lay expliquer très bien mu lay ah, expliquer sa vision. cest dire que avec le gars. Oui. la l' agriculture Mabouba Diagne. Euh, certainement certainement dans sa logique. on va assister au retour de ce qu'on appelle les CERP les centres d'expansion rurale euh, et polyvalents yoo xam ni ENA ENEA moo leen daan alimenté te léegi corps boobu daan daanaka existé comprendre à travers l'animation rurale les coopérations c'est-à-dire que notre économie doit être basée sur l'animation rurale et d'ailleurs et d'ailleurs hmm. euh, flair bi ma ci am nii. ci hmm. moom hmm. ci bu ñu ko jàppale bu ko jàppalee euh, dafa mel ni flair boobu la Diomaye am ci moom. dégg nga ni mu waxee ci moom. barki démb moo euh, jaay waaw non non non sax dafa wax lu garaaw ci moom. mooy. Euh, Diomaye lui a interdit de faire la politique. <laughs> nekk yow dañuy fi indi pour nga régler ñu suñu problème. dugloowul la ci politique te bul dugg ci politique. comprends nga lijjanti ñu lii parce que ça c'est ton domaine et c'est un signal ça non non c'est c'est c'est très fort moo tax ma jàpp ni euh, euh, s'il est accompagné parce que souvent aussi son problème hmm. c'est que lui il est technique et il parle en technique il faut que des bataillons de communicants wër ka pour que le message mën a jàll ah. parce que soo xoolee bis bi bu mu doon am euh, ak waa l'observateur et cetera ça veut dire que ñee voilà ñee euh, parle en communiquant en presse journaliste mm. lui il parle en technique donc il y a un biais est-ce que est-ce que comprendre nga parce que lui c'est un technicien quoi mm. lui il, est dans la matière quoi lui il est dans la ah. matière mais en tout cas euh, euh, pour man mm. l'un des ministères qui peut nous valoir énormément de satisfaction dans cinq ans et à partir duquel va être lancée toute la transformation structurelle du Sénégal, mm. c'est le ministère de l'Agriculture. moo tax on doit y une importance capitale. président Diomaye ne mandat ci loolu la ko absolument et d'ailleurs et d'ailleurs même mieux et même mieux. Euh, depuis qu'on a décidé conférence de. Maputo waaw depuis ñu décidé concernant conférence Maputo. Mm. Euh, euh, loolu ñun góorgóorlu yi ñoo koy ñaan président. prochain budget bi ñuy. am 2025 boo xam ne ñu ñoo koy voté ñoo koy defar le nouveau régime moo koy defar xam nga bi bi régime Macky Sall moo ko defar dañ koy exécuter mm. mais ba la ñu ñoo koy élaborer préparer ko donc ñu koy exécuter euh, s'il vous plaît président euh, nañu jël 10 pour cent de budget bi ñu yóbbu ko ci agriculture lii di des ak campagne bi dinañu mën a permettre ñu expérimenter ay affaires surtout avec le ministère. waaw expérimenté mais à prochain prochain budget bi di ñëw. les li ñuy defoon accords yoo xam ne dañu ko jëloon même dans le cadre CEDEAO même de l'Union africaine en fait de africaine que gouvernement bu ne pour atteindre la souveraineté ou la sécurité alimentaire dix pour cent de ce budget da nga koy réserver ci. agriculture ci mbay mi si on le fait sur une période de cinq ans. le premier mandat. c'est fini Sénégal tàkk na ba fa mooy lépp lu ñu wax ci souveraineté alimentaire. mais quand je parle de l'agriculture oui. attention. je parle de l'agriculture avec grand A. Tu, tu, tu la différence. mooy sooy wax agriculture ak A minuscule boobu mbay mi ngay wax mais koy wax agriculture ak grand A mooy agriculture élevage ak pêche. ak pêche loolu mooy agriculture grand A. Ah. parce que léegi la rek la am décloisement décloisonnement mais yooyu yëpp ñoo doon ànd. surtout agriculture toujours ñoo mës di ànd. Mmh. Un bon agriculteur est un bon éleveur. Un bon éleveur est aussi un bon agriculteur. Mm. parce que amul ñoo ànd. ñoo ànd mhm. alors nga wax yéene ji président de la république am ci mbay mi ak pêche bi te feeñ ci li nga xam te ne mooy conseil des ministres da nga jàpp ni am nga yéene mm. am nga yaakaar bu baax ci li nga gisee. Mm. en tout cas le ministre de l' agriculture di Mame Bouba Diagne di doxalee ak euh, dégg mi ci am li mu tàmbalee teg euh, ci ci ci ci penc mi mu amaat communication premier également ñëw. Euh, ci pàcc yoo xamante ne déggoon nañ barki Dembo Ndiaye sax ci système de rémunération bi mu wax ni dañ ko déstructuré. te mhm. yàgg na depuis 2000. faaw ñu indi ci ay correction am na ay fonctionnaires yu ko yàgg a kaas. Mhm. ñu mun ñu comprendre hiérarchie A hiérarchie A bu demee ci li nga xamante ne moo aju ci rémunération.